لو بكرد قبل كرد من مراب رفع رافع رفعا فاقا وخلد الصفا والوفاقا أمداه قادت لنا الصلاة mbokki jullit yi mbokki taalibe ñoo ngi sant yàlla bu di julli ci yonent bi sallallahu wa sallam di santaat bu baax sunu yaakaar teeg ëllëg di ko tedd ki di Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul di jaajëfal bu baax a baax a Cheikh Ibrahim borom Daarul Moxti di ñaanal bu baax itam jëmu ji tedd jëmu ji sell ji nga xam ne moom lañ jàkkaar lool di sëriñ Khalil Rahman yàlla doole ko tawféex doole ko kattanal ci barke way juróom bu tedd wa di Cheikh Mouhamadil Muxtaar waaye nag mbokk yi ñoo ngi ci bés bi nga xam ne moom la ñuy fàttaliku dajeb Seexul Xadim Xadim Rasoul ba ak euh, euh, euh, rakkam ja taalibeem di maam na Birahim borom Daarul Moxti ginnaaw ba mu jógee ci tukkeem bu réy boobee ca dénkoon maam Thierno njaboot gépp bi mu ñëwee itam seen gisee ba am solo boobee tey moom la ñuy fàttaliku ñoo ngi nii nag ci kër Serigne Mouhamadou Mokhtar Mbacke moom Serigne Cheikh Awa Balla Mbacke yaa xafaar fekk fi nga xamante nag moo di ab xalifaam di sëñ Khalilou Rahman feggoog Serigne Djili Mbacke ak mbooleem njaboot ak sëñ Moudou Mokhtar gépp su ko defee nag ngir bés bi tey ak taxawaay bi nga xam ne sëñ bi am na ko ci olof yi nee nan ku yokkul da ngaa wàññi ca am na li am solo mooy euh, baax am na solo waaye bokk na ci li gën a baax nga dem bàyyi ku baax su ko defee lépp loo xamante ni bii naal la yoo naaloon dana ko àggale te kenn ku ne xam ne la sëñ Mudu Muxtaar naaloon sëñ Xalilu Rahmaan am na taxawaay bu am boo xam def na ko ci ba naal yi naal yi boppam waaye itam su dee njëmbat itam ko suuxat su dee samp dana ko rokkas yaakaar naa su ngeen gisee jëwriñ yi nga xam ni moom ngeen gis ñu ak ñoom liggéey bi ak ni mu uufe ay rakam ngeen xam ni liggéey ba mu ko sëñ bi baytaleel ma nga ci def kémtulaay kattanam moo tax nag dañu yëkkati kàddu gi jox ko jëwriñ sëriñ Modou Makhtar Diop moom tamit bokk ci ñun di kenn ci euh, jëwriñ ci kër gi moom itam di borom taxawaay bu am solo ci xam euh, xamle Cheikhul Khadim waaye tam itam xamle ak Cheikh Ibrahima borom Daaru Moxti waaye itam nag xam xamle jàmbaar ji nga xamante ni mooy euh, Cheikh Mamadine Mokhtar Mbacke sëñ Modou Mokhtar ñu tënkal ci bés bi ak taxawaayu jëmm ji nga xam ne nag mooy sëriñ Khalilou Rahman ci bés bi nga xamante ne tey moom lañ nekk. mbokki jullit yi ñuy seetaan te di ñu déglu ci réew mi ak bitim réew noo di nuyu. ci turu sunu kilifa sunu sëriñ sëriñ Xalilu Rahman Mbakke xalifa sëñ Modou Maxtaar te ñaan sunu borom mu yàggal ko fi lool te wéral ko te wéralal ko mbooloo mi ko wër ba lim yéene kii liggéeyal ko waajur mu baax wi sunu borom dolli ko kattan dolli ko ak man bam defe ko ni ko bëggee te ànd ko nag ak mbooleem njabootu sëñ Modou Maxtaar gi ni ko waxee léegi sëriñ Jili mbakki mi toog moom sëriñ Modou maxtar féeti Touba di jàmbaar nekkal fa sëriñ bi ba fi sëriñ Modou Mokhtar di nekk bi fi sëriñ bi jógee it digal loolee ko wajur mu baax wa sëñ Modou Mokhtar digaloon sëñ Khalilou Rahman mi toog tey di Cheikh Mahamadou Mokhtar feddileel ko eh, ndigal loole nga xam ne wajur ba moo ko santoon tam nekk ci jàmbaar am ci fulla am ci jom eh, yëngu-yëngum yëpp mu def ko ci taalibe yi ak ite yi kon noo koy nuyu noo ngi koy ziare noo ngi jaajëfal te taxawaay bi nga xam ne it mi ngi koy def ginnaaw bi sëñ Modou Mokhtar jógee ci ginnaaw sëñ Khalilou Rahman lépp loo xam ne lu sëriñ bi woote la muy màggaluk Daaru Manaan muy màggaluk Daaru Muxti muy màggaluk Tuubaa mbooleem ay taalibeem yi nga xam ne ñoo aju ci moom daanu dajale seen addiya di ko jox ko ñun ñi nga ne sëriñ bi tamit seen kanam jébbal nu ko ba noppi nag àndaata nu liggéey bi démb rek moo ci mujj ci bisu màggaluk maam Cerno Birahim kon noo ngi koy nuyu nuy ngi koy ziar di sëñ Sidi Mbàkke mi nga xam ne mooy jëwriñu sëriñ bi te di jëwriñu kër sëñ Mourou Maxtaar moom it ñu ngi koy siyaara ak njaboot gi yëpp sëñ Mbàkke soxnaloo mu sëñ Mourou Maxtaar foofu la toogoon léegi den ak sëñ Jili ak mbooleem njabootu sëñ Mourou Mokhtar bu jigéen gi fi nekk yëpp tàmbale soxna maam Faati ba ci maam Asawal bi caat mi sëñ Moussa euh, fekk nga nu ci bërëb boo xam ne. Mhm. Euh, noo ngi leen di sant bu baax bi yàlla boolee ñu bokk métier mi di ci yëngu yàlla boole ñu amuñu lu dul kër gi xamuñu lu dul fii. Mhm. xamuñu lu dul kër sëñ Mourou Mokhtar amuñu lu dul sëñ Mourou Mokhtar. kon lu nu ci waay lebal lu néew mu bari danañ ko jàpp danañ ko jëkk danañ ko téye te liggéey bi xam nañ ni mu demee xam nañ li ci war xam nañ taxawaay yi xam nañ coon bi ki nekk ndax ñoo ak yéen ñoo koy ànd ci waxtu nekk kon loolu maa ngi leen ci sant maa ngi leen ci gërëm maa ngi leen di ñaanal suñu boroom sàmm leen te taxawu leen te yeggale seen yéene te yeggale seen mébét ci liggéey bi nga xam ne yéen ko liggéey seriñ bi bis bii nga xam ne nag yàlla suñu borom dogal ne fekk ngeen ñu fii ci kanam sëñ Xalilu Rahmaan muy xalifa sëñ Modou Mokhtar fii mu nekk jàmbaar joo xam ne kenn du ko fàtteeti ci mm-hmm. jikkoom ak jëfam ak jaamu yàllaam ak lëggéey lislaam ak lëggéey sëriñ Tuubaa Cerno Birahim Musaa Ahmadou Mokhtar fii laa nekk mm-hmm. waaye baax am na solo lool waaye bàyyi sa gannaaw njaboot gu baax am na solo sëñ Modou Mokhtar dem na waaye bàyyi na gannaawam njaboot gu baax jëmm ji toog wuutu ko tey di Seex Mahamadou Mokhtar lépp loo xam ne waaye waajur mu baax wa nekkoon na ca loole rek ca la nekk. Mhm. loo xam ne waajur mu doon na ko digle ca loolee rek la nekk nii ngeen ko gisee nag noon rek la mel euh, bis bii ngeen ko fekk. Mhm. muy bisu turandoom di Cheikh Ibrahima Faty borom Daaru Muxti sëriñ bi tuddee ko maam Thierno Birahim. Mhm. maam Thierno Birahim mi mu ko tuddee it ñëpp xam ab taxawaayam. xam ab yëngoom xam liggéeyam ba nga xam ne maam Thierno Birahim meloon na ko ci Serigne Touba moo waral bis bi kon boo nu fekkee ci ëtt bi fekk ñu ci sunu Serigne bu tedd bi laat ñu bis bii ñu dajee muy gisab Serigne Touba ak maam Thierno Birahim Mbour Moussa ku ne ñëw na fi ku ne ku ne fi barki dé waxtu wi démb rek sëñ Abdou moom sëñ Fallou ñu ko sëñ Abdou Lahad ambassadeur mi ngi fii ci biir nekk ak sëriñ bi ñu xam ko diggam ak sëñ Modou Mokhtar xam wala mu am ak sëñ Modou Mokhtar xam nuñu njaboot gi dañoo ànd dem ba ca moom ne la suñu waajur wa nekk woon ak yow foofu rek lañ nekk dem ci njabootu sëñ Fallou gi nga xam ne am lante nañu sëñ Modou Mokhtar mu def ko ku ku a bu baax wa amoon ñoom njabootu sëñ Modou Mokhtar joxoñ nañ ko moom mi mm. dara nii mu mel rekk ni mel waaye ku fees la nag fees tel la def nag te ku ko gis nii nag tax te gis ko nii mun a dégg rek ku fees tel la nag te day lool yi fii mu toog te fii mu toog nag laataa mu fiy toog wax nañ ko ko sëñ Modou Makhtar ma nga cëg dëgg ma damay dem bari na ñu fi jógee de waaye li way juróom wax mu dugg nopp bari na néew na kilifa gu mu jóge wax damay dem waaye kii laa leen fi bàyyi sëñ Modou Makhtar loolu wax moom xam ne li fi bàyyi xam ne ñi fi bàyyi xam ne kër gi mu bàyyi kooku kon yal na suñu borom dooleel ko eleeram taam ci barkeem kon noo taalibe yi jógee ci réew mi ak bitim réew ak fu ne taalibe jógee dafa nag ñëw nuyu jawoot gi خلق من قاد إليه ورا نكن نبي للقديم كشفا وأبو أخنان قديما شبا أنا لولا asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax di ñaanal Serigne Mountakha mu yàgg fi loolu ci ànd ak wér ñaanal Serigne Bassirou Niang euh, Serigne Bassirou Anta Niang mi nga xam ni moom la ñuy xoolee jëmmi borom daaru ji tey yàlla doole ko tawfeex ca kàttanal ko noonu la ñu siyaara itam ñaanal ñi nga xamante ni ñooy mbooleem njaboot ak borom daaru gépp waaye itam ñu ngi fii nag tey ci bés am solo bi nga xam ni moom la ñuy fàttaliku giseeb Seexul Xadim ba ak jàmbaar ji nga xam ni moo di maam Thierno Birahim mi mu dénkoon yoon wi. ñu nekk fii nag ci kër Serigne Mouhamadul Moukhtar Mbacke moom Serigne Cheikh Awa Balla Mbacke yaa xafaar ñu ñaanal Serigne Khalilou Rahman yàlla doole ko tawféex waaye itam suñu xarit suñu wëlër wi di Cheikh Mouhamadul Mahfous Mbacke moom Serigne Modou Moukhtar di ñaan yàlla kattanal ko at mu jot itam di am jéego ànd ak ITV ak euh, euh, académie Minane waaye ñu ànd ak euh, Istikhama TV ñu ñëw ànd ak moom ci liggéey bi nga xam ni moom lay def su ngeen gisee lii ngeen xam ni teg na ko ci tax simo bi sunnati yàquudu naa lil jenn li sëñ Tuubaa waxoon mi ngi koy defee màggal gi waaye itam màggal gi itam mu lëkkale ko ci bernde ak ligg ak jaamu yàlla gu ma sëkk moo tax ngeen gis wàccaayu am solo yi nga xam ni def nañ ko kon sëriñ bi ginnaaw bu ñu la nuyoo siyaar la pare rek bëggoon nga dikkal ci solos bis bi ak wàccaayu taxawaay bi nga xamante ni njaboot ak sëñ Moudou Mokhtar gépp am nañ ko ci rawatina fii ngeen nekk nii nag tey ci dal bi ànd ak sëñ Khalilou Rahman mi nga xam ni moom ngeen di xoolee tey jëmmi seen wayjur wa di Cheikh Mamadou Mokhtar. waaw kay jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. ñu ngi sant suñu borom di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di feddali sunu njëbal Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul te di ko jaarale ci sunu bunt ci moom di Ibrahim borom Daaru Moxti Cheikh Mouhamadul Mokhtar Mbacke sunu borom dolli ay leeram dolli ko yërmande ci barke Serigne Touba di ñaanal itam Cheikh Mountakhal Bachir xalifatul am di tarixatil muride sunu borom guddal fanam may ko wér. di ko ñaanal Serigne Bassirou Anta ak mboolem njabootu sëriñ bi yëpp ak mboolem taalibe yëpp di am mbégte lool ci seen teewaay rawatina yéen ñi nga xam ne sunuy wóllëre ngeen muy waa Istikhama waa académie ak waay TV yëpp. di leen gërëm bu baax a baax a baax. bis bi nag comme ni nga ko waxee rek bis bi moom bisub Serigne Touba euh, muy bis boo xamante ne bisu mbégte la ndax bi Serigne bi dellusee ci géej gi. te lu jiitu tukki bi mu dénkoon njaboot gi boroom daarul moxti dénk ko yoon wi bi nu ñibbisee seenu gise bu njëkk muy doo tombe woon ak nisu bisub tey bii te bis bi itam euh, sëriñ Fallou Mbacke radiallahu anhu joxe woon ci ndigal ngir jindi ko màggalal boroom daarul muxti ndax diggante sëñ Touba ak Thierno mbégte mi noo am keroog mbégte féetewu ko kaw kon bis la boo xamante ne bis bu am solo la waxuma sax euh, li ñu ciy màggal nga xamante ni moo ko sabab waaye ci lislaam rek bis bi daa bari yàlla na yàlla sotti xéewal ci réew mi def fi jàmm dolli fi tawféex ak yi ngëneel defal ko ñëpp ci barke Sëñ Tuubaa ëtt bi ñu nekk tey yaakaar naa muy ëtt Cheikh Mamadou Moukhtar di jàmbaari Sëñ Cheikh Awa Balla gi nga xam ne yaakaar naa ni suñ ko a jàpp ne ay ñu bëree bëri suñu xam ne nay Seexul Xadim wala xam ne na liggéey maam Thierno ci jëmmam lañ ko xam ne ci waaye itam ci yar lan nga ñu mën a fàttali ci jëmm jooju tey waaw sëñ Modou Moukhtar yàlla dogal na comme ni nga ko waxee woon léegi ku gëmoon Serigne Touba la ku gëmoon maamum borom Daarul Moxti la yàlla dogal na itam liggéey na ci yoon wi liggéey boo xamante ne nii jamono jamu mu koy def booba yombut ndax booba euh, fit bi mu daan waxee ci Serigne Touba ak xam-xam bi mu ci daan waxee ak njàmbaar gi mu ci daan doxee ak maamum borom Daarul Moxti booba jamono. ñi ko mënoon bariwul doo wax sax ne ñi ko ñeme bariwul waaye ñi ko ñam ñi ko mënoon bariwul ba tey jii loolu law na ba baraana ñoo xamante nii modèle boobu sax nag la ñuy copier waaw bari na ñoo xamante nii ci lañ inspiré wu yàlla fay na ko ci itam ndax ku gis sëñ Gana Messere ni muy taxawee xam ne loolu pay suñ borom la gum jaarale sëñ Modou Makhtar ak ñu ci njabootam moo xam ñoom sëriñ Sidi sëriñ Cheikh Assi Dieye ba sëñ Khalil mi ko fi nekkal mooy lim fi euh, jëmbatoon bàyyi ko fi moom moo tax njabootam gépp topp ci tànk yooyu di ko di ci dox tey waaw. tey nag euh, fekk waaw comme ni ko sëñ bi diglee rek jàngal xuraan bi ñu xëyee njàngum alxuraan mi leen njëkke euh, li ci topp mooy njàngum xasida salaatu ala sikar ak bernde waxtaan delloo nit ñi ci yàlla ci yonent beeg Sëriñ Tuubaa